wa baadu fassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yéen mbokk yi topp seen site muslih tv point com seen mbokkam daara Alioune Cissé mooy am mbégte di des di leen nuyu te di leen ziyaara seen jotaay bi ñu ngi tuddee majaalisul fiq mooy jotaay la boo xam ne dafa jàngalante gi yéen lu jëm ci wàllu fiq waaye nag ñu tàmbale woon ko gi yéen téere bi ñu tuddee al ahdariyu fil ibadat ala mazhabi imam malik radiallahu anhu kon dawe woon nañu jëloon ak yéen ci téere bi juróom benn dars tey ñu war a dikk ak yéen tey suñu juróom ñaareelu dars dañ fiy mujj nag borom téere bi mi ngi doon jàngal lu jëm ci faratay njàpp waaye nag noonu ak uh, sunna yi mu jàngaloon ne njàpp juróom ñaar la waaye sunna yi moom dafay nekk juróom ñett kon tey nag mi ngi ñu bëgg jàngal loo xam ne nit ki bëriwaana jëfam ju muy dugg da ciy feeñ mooy lu mel ni ak fàtte ak yu ne mel nga xam ne jàngalekat yi dañuy wax ne sax li tax ñu tuddee doomu aadama al insaan mooy ak mën a fàtte moo tax ñu tuddee ko euh, al insaan kon tey kii jàpp ba fàtte dikkal ko njuumte dikkal ko nu mu ko war a defaree tey loolu la ñu téere bi bëgg a jàngal tey mooy fi muy waxee naan wa man nasiya képp ko fàtte ba jeex mu ne wa man nasiya képp ko fàtte fardan ab faralta min aadaihi ci faratay njàpp yi fa in tazakkarahu bu ko fàttalikoo bil xurbi ci lu jege faalahu na ko def wa ma baadahu ak li ko féete ginnaaw loolu mooy lan mu ne képp koo xam ne da ngay jàpp bi ngay jàpp nga fàtte benn cëru farata bi nga paree amaana yàggagut bi nga paree rek sa xel daj na yi mi da nga fàtte comme lu mel ni sëlmu da jàpp ba ci digg ba nga fàtte sëlmu bi nga jàppee ba pare rek sa xel dañ ne yow mi sëlmuwoo kon da ngay commencé da ngay dem nga sëlmuwaat ci sens yi raxasaat loxo masaawaat bopp mottaliwaat li def si njàpp gi yépp loolu la bëgg a jàngale rek kon bu dee da nga fàtte farata daal boo ñëwee bu dee yàggagut da nga koy def moom cër bi nga fàtte woon mais ak li ko féetee ginnaaw tamit da nga koy defaat boo ko defoon tamit da koy defaat loolu la bëgg a jàngale mu ne wa intaala bu dee dafa yàgg nag faalahu waxdahu waaye wa aadama salla qablahu mu ne bu dee dafa yàgg boobaa nag dangay ñëw nga def cër bi moom kese moom ngay def waaye nag julli gi nga julli woon da nga koy julliwaat julli gi nga julli woon da koy julliwaat bu dee da ba pare sa xel daj na yow def loxo bii bi ngay jàpp raxasoo koon da ngay dem nga raxas ko moom kese ndax yàgg na waaye ba pare julli gi nga woon da koy julliwaat yàgg nag nuñ koy xamee borom mursid waxoon ne bi yubsil aada i fii zamanil mu'tadil ni ñu xamee ndax yàgg na wala yàggut mooy cër yëpp fendi ci jamono boo xam ne seddut bu ëpp waaye tàngut bu ëpp maay jamono bu digg dóomu bu cëree fendee daal ci la ñu xam ndax yàgg na wala yàggut kon loolu tamit ñu bàyyi ci xel bu baax bu dee da nga fàtte woon daal cëru farata da ngay ñëw def ko bu dee yàgg na moom kese bu dee julli nga da dem nga julliwaat julli gi kon mi ngi noonu kon lool moo mën a nekk ci farata yi waaye wa in taraka sunna bu dee nag sunna nga bàyyi faalaha da ngay dem nga def ko waaye wala yuidu salaat doo baamtu julli gi bu dee na la nga bàyyi lu mel ni comme galax ndeku ay salax ndeku ak yenn mel yu nga xam ne na la boo ko fàttalee ko da ngay dem def ko waaye julli ko nag moom doo ko bamtuwaat bokkut ak farata ndax da ngay dem def ko ngir bu beneen julli jotaatee bu dee sa njàpp yàqu gu nga mën a julleeg moom waaye bu doon farata da ngay dem def ko bamtuwaat julli gi kon mi ngi noonu mu ne wa man nasiya képp ku fàtte lu maatan ab déenéer mooy ab espace xasalaha na ko mooy espace bi mu fàtte wax waxdaha moom dong dana raxas espace bi dong nag waaye bi niyatin day ànd ak yéene bu koy raxas kuy kuy jàpp fàtte raxas benn espace day dem raxas ko waaye day ànd ak yéene bu koy raxas waaye wa in salla qabla zalika nag aada bu dee nag dafa julleen ba pare door a xalaat ne moom da bi muy jàpp fii tooyut day dem mu raxas ko ànd ak yéene waaye julli gi mu julliwoon tamit day dem bu bamtuwaat ko ndax boo xoolee fépp foo xam ne man nga faa bàyyi espace rek ci biir jàpp fu farata lay doon te bu booba boobaa farata ga matut moo tax kon moo tax boo ko raxasee espace bi nga bàyyoon boo ko raxasee ba pare da ngay dem nga baamtuwaat ah, julli gi kon mu ngi noonu mu ne wa man tazakkara képp ku fàttaliku al madmadata galaxndiku wal istinsaaq ak saraxndiku nga fàtte ko ba'da an sharaha fil wajihi ginnaaw ba nga commencé raxas xar kanam nga xel sa xel dañ ne yow mii de da nga fàtte galaxndiku wala saraxndiku mu ne fala yarji ilayhima nee na bul bul bul bul an annuaire de nee na continuer rek sa njàpp xataa yu timma wudu'ahu ba sa njàpp mat da ngaa fàtte galaxndiko wala nga fàtte saraxndiko ba commencé sëlmu bul bul annuaire de continuer sa njàpp ba sa njàpp jeex nga door def ñaar yooyu nga fàtte woon ndax kenn du bëgguñ ki bàyyi ko ci sun bàyyi ko ci farata jëm ci sunna ndax farata bu doole moo tax da ngay continuer rek ba pare soo paree nga door def sa galaxndiko saraxndiko bi nga xam ne da fàtte woon kon mi ngi noonu kon mi ngi bëgg a jàngale tamit li jëm ci ngëneeli njàpp mu ne wa fadaa iluhu ngëneel jàpp ngëneel li nga xam ne moom la jàpp am bi ci njëkk at tasmiyatu mooy wax bismillah at tasmiyatu mooy wax bismillah mooy ngëneel bi ci njëkk waaye naka noonu wasiwaaku ak soccu ndax yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na bu bant na sonal xeetam dana leen digal képp jàpp gu ñuy jàpp balaa ñu jàppaati ñu dem ah, soccu te kilifa nag bu dee wax naa njabootam su ma sañoon nga defal ma nangam bu dee njaboot gu baax nga njaboot gu bëgg lu baax ah ndakam sa kilifa junj na la ko rek ah war nga di ko def kon kon mi ngi noonu kon socc ci ngëneel yi jàpp la bokkoon waaye nekk nu wa zaidu ak dolli ala darbatil ula ci li ngay dolli ci raxas bu njëkk ba comme bu dee yaa ngi raxas loxo tànk bi ngay njëkk a tànk raxas loxo bi boobu bu matee farata ji mat na kon ñaar yi ngay defaat ginnaaw gi ñaar yooyu ngëneel la booy sëlmu tànk bi nga njëkk tànk sa loxo di ci sëlmu bu dee kanam gi tooy na rek boobu mooy farata bi ñaar yi ngay dolliwaat ginnaaw gi nag ñaar yooy ay ngëneel la loolu la bëgg a wax moo tax mu ne wa zaidu ak doole ala darbatil ula ci dóor bu njëkk ba mooy ñaar yi ngay dolliwaat ginnaaw gi fil wajhi ci xar kanam gi wal yadayni ak ñaari loxo yi yooyu yëpp ngëneel la mu ne wal bidaayatu ak tàmbalee masa bi mu xaddimi si ci njëlbeenal bopp bi booy masa bopp nga commencé ko ci jëbi loolu tamit ci ngëneel la bokk waaye naka noonu mu ne wa tartibu sunan yi ak nga toftale sunna yi loolu tamit ci ngëneel la bokk waaye naka noonu wa xillatul maa yi ak néewal ndox mi alal adu wi ci kaw cër yi bañ a yor sat la gi di sotti mi dem rek waaye nga yemale ndox mi ci kaw cër yi bañ a sotti sotti gu ëpp nga yemale ko waaye naka noonu tamit wa taqdimul naa ngay jiital cëri ndeyjoor yi alal yusra ci këri cam cëri càmmooy yi maanaam chaque jour tamit ngay njëkk a raxas suñu joor door a raxasi càmmooy loolu tamit ci ngëneel yi la bokk mu ne nag wa yajibu dafay war taxliilu asaabi al yadayni xaliil baaraami loxo yi xaliil mooy nga def nii say baaraam maanaam baaraam bu nekk nga dugal ko ci diggante baaraam ya pour bomb ko loolu mooy xaliil mu ne loolu nag dafa war mu ne wa yajibu dafay war taxliilu asaabi al yadayni xaliil baaraami loxo yi dafa war waaye naka noonu mu ne wa yustahabu nag sopp nañ ko nag firli ji lay ci baarami tànk yi bu dee baarami tànk yi la moo nañ koo sopp mu ne waye ji dafay war ba tey taxliilu lixyati xalil si sikkiñ alxafiif bu oyof fil wudu ci njàpp bu dee sikkiñ la boo xam ne sa ku nee na sopp neen nga xalil ko ci ci ci njàpp bu dee sikkiñ boo xam ne saqut sopp neen nga ah, nga ko dafay war kon nga xalil ko ci njàpp sikkiñ bu sëq ni ñu koy bu sëqu ni ñu koy xamee nag borom mursid ba tey nee na isa zaharal jil bi min min taxtihi mooy bu dee sikkiñ boo xam ne daal boo xoolee danga mën a seen der bi nee na sikkiñ boobu lañuy jàppee ne sëqut waaye bu dee boo xoolee doo mën a gis der bi nag sikkiñ boobu sëq la bépp sikkiñ boo xam ne daal boo xoolee yaa ngi gis der bi ci suuf boobaa xamal ne kon sikkiñ boobu sëqut boobaa daa war kon booy jàpp nga xalil ko mu tooy mooy waaye nag doonal kashifati walif bu fatt bi bu dee nag bu sëq la nag moom boo ah, booy jàpp doo ko xalil moom da ngay jaar ci kaw rek jàll waaye nag wa yajibu dafay war taxliluha xalil si kiñ bu sëq dafa war nga ko lan fil xusli ci sangu bu dee sangu faratal nag moom ah lu mu sëq sëq sëq moom dafa war a tooy moom walaw kaana kashifatan ak lu mu mën a sëq ak lu mu mën a tal-tal boobaa bu dee sangu faratal moom ah da ko war a xalil bam mm, tooy ndax boobaa derrière mi fépp a war a tooy moom bu xam bopp la lépp dafa war a tooy moom waaye daal bu dee sikkin la boo xam ne moom sëqut booy jàpp dafa war nga xalil ko ma tooy waaye bu sëqee nag moom ba wàcc ci njàpp ah, da ngay jaar ci kaw jàll waaye bu dee sang faratal nag moom lu mu sëq-sëq moom da nga kaa war a xalil ah, mu tooy nga xam naa ko ñu ngi ñëw taxaw foofu jëm cee jaaral ci anam ak mëmbastal mu ne waman nasiya képp ko fàtte fardan ab farata min aadaihi ci cëri njàppam fa in tazakkarahu bu ko fàttali ko bil qurbi ci lu jege faalahu na ko def waa ma baadahu ak lépp li ko féetee ginnaaw waaye nag wa in taala bu dee dafa yàgg fi mu ko fàttalikoo yàgg na waxdahu waxdahu faalahu na ko def waxdahu moom dong wa aada mu baamtu ma salla qablahu li mu julli woon njëkk mu koy fàttaliku bu dee daal daa fàtte farata te bi nga ko fàttalikoo yàggut day dem mu dem def ko ak li ko féetee ginnaaw waaye bu dee nag yàgg na day dem mu def ko moom kese waaye nag julli gi mu julli woon avant da koy jum da koy julliwaat waaye wa in taraka sunna bu dee sunna la bàyyi nag faalaha day dem mu def ko waaye wala yuidu salaat du bamtu julli bu dee sunna la nag lu mel ni nga loxandiku salaxandiku da ngay dem nga def ko boo ko fàttali ko waaye nag doo doo julliwaat julli gi wuuteeg farata foofu mu ne wa man nasiya képp ko fàtte lu maatan ab déenéer mooy ab espace xasalaha na dem mu raxas ko wax daxaa moom dong espace bi dong la yem raxas ko bi niyatin ànd ak yéene waaye wa in salla qabla zalika aada bu dee julli na nag avant mu koy raxas day dem mu ndax nee naa la fépp foo ne mën nga faa bàyyi boobaa cëri farata lay doon wax lu mel ni ay loxoog ah, kanam ak tànk yooyu nga man a bàyyi ah, farata ma nga mën a bàyyi espace yooyu ay farata la te farata bu matut boobaa jaamu yàlla ko moo tax moo tax moo tax boo ko fàttali ko da ngay def ko ànd ak bu dee julli woon nga ab avant da ngay dem nga bamtuwaat julli gi mu ne wa man tazakkara képp ku fàttaliku almat madata galaxndiku wal istinsaaq ak saraxndiku ba'da an sharaa fil wajhi ginnaaw ba nga commencé raxas xar kanam da nga sa xel door daj mu ne falaa yarji'a ilayhima xatta yutimma wudu'ahu nee na bul anéer dem ci ci sëlmu ah, ci galaxndiko wala saraxndiko lu dul ne sa njàpp dafa pare bu dee da nga fàtte woon galaxndiko saraxndiko sa xel daj ko fekke bi nga koy daj fekkee ne commencé ngaa sëlmu continuer sa njàpp ba mu pare nga door dem def ñaar yooyu nga fàtte woon mu ne wa fadaa iluhu ngëneeli njàpp bi ci njëkk at tasmiyatu mooy wax bismillah waaye naka noonu wa siwaaku ak soccu ak wa zaidu ak dolli ala darbatil ula ci dóor bu njëkk ba maanaam raxas bu njëkk ba ñaari ngay dolliwaat ginnaaw ga bu dee bu njëkk ba tooyoon na ñaari ngëneel lay doon fil wajihi ci xar kanam gi wala day ne ak ñaari loxo mu ne wal bidaayatu ak tàmbalee booy masa bopp bi muqaddimi ci njëlbeenal bopp bi maanaam booy masa bopp nga commencé ci jëbi loolu ci ngëneel la bokk waaye naka noonu wa tartibu sunna nii ak nga toftale sunna yi waaye naka noonu wa xillatul maa yi ak nga néewal ndox mi alal aduwi ci kaw cër yi bañu jàpp di sotti mi dama di yàq loolu baaxut naka noonu wa taqdimul yumna ak nga jiital ndeyjoor ci ndeyjoor yi alal yusra door ca tegi càmmooy loolu ci ngëneel la bokk mu ne wa dafay war taxliilu asaabi al yadayni xalil baaraami loxo dafa war waaye naka noonu wa yustahabu sopp nañ ko nag fi asaabi al rijlayni ci baaraami tànk yi topp nañ ko ci baaraami tànk yi waaye wa dafay war ba tey mu ne taxliilu lixyati xalil sikkiñ alxafiif bu woyof maanaam boo xam ne sëqut dafa war booy jàpp nga xalil ko te nee naa la ni ñu xamee ndax sëq na wala saqut mooy bu fekk yaa ngi xool di mën a gis der bi rek boobaa dañuy jàpp ne boobu saqut waaye bu dee boo xoolee sëq la moo tax mu ne waye bu oyof filiw doyu waaye waye dafay war taxliluha xalil sikiñ bu sëq nag fil xusli ci sangu walaw kaana kashifatin ak lu mu a sëq sëq sëq bu dee sangu farata moom da nga ko war a xalil mu tooy kon xam naa kon ñu ngi ñëw doyloo lool di wax ne lépp loo xam ne leer na ci dars bi ñu ngi koy sante yàlla waaye lépp loo xam ne dëng na ci suñu gàtt àll la suñu gàtt àlliw la ñu ngi koy jégalu borom di leen ko jégalu di wax ne ñu ngi jaajëfal oustaz Saïd mi nga xam ne moo nekk na ñun tey ci technique bi naka noonu di soññ mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy topp ci site bi di leen soññ ñu wéy di abonné te di wéy di topp suñuy émission ci site bi di wax ne kon ñu ngi ñëw doy la di wax ne li ci leer yàlla li ci lëndëm gàtt xam-xam ak ñàkk fasaxa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh